Assalamualaikum, wa dali mbok dali for may nuyu population for yep di nuyu ñi nga xamni tamit ay way tukki lañ wa diaspora bi ah, di nuyu notable quartier yi di nuyu chef euh, imam quartier bi di nuyu ñëpp ah, di ñaanal ñep jam di ko sakku ci yeen tay ñu waroon waxtaanee li jëm ci dalifor nga xam ni suñu dëkk la ñun ñëpp ñu bokk ko war ko sàmm war ko yiir ànd ci ak Daf Vision ñu yaatal waxtaan wi ba ku nekk mën jot. waaw Omar dalifor démb moom xam nga <laughs> boo voyagé boo ñëwaatee sax même même dëkk bi ngay gisaat. xam nga même coono yi même métit yi xam nga li gars yi doon dund il vingt ans ba léegi moom la ñuy dund boo xoolee mbënd bi nekk suñu ginnaaw rek ndox mi fees fi delete gars yi def assainissement ba pare ba léegi ndox mi dafi stagné wu ça veut dire que amul benn benn changement quoi boo xoolee aussi case foyer bi presque travaux yi yëpp mu ngi taxaw fi mu nekk nii jeunesse bi lii mu lii lañu am amuñu lu dul terrain Dalifort amuñu lu dul case foyer mais ñaari mbir yooyu nga xam ni ci la nit di daje di ci di ci waxtaanee di ci foo di ci di ci di ci di ci sotante xalaat ñaari yooyu bu demee ba commune bi mënu ci mënu mënu ci progresser ci si travaux yi ça veut dire que gars yi liggéeyuñ quoi dañu topp folklore bi rek topp mbumbaay bi topp politique politicienne bi mais véritablement li li li leen li tax a li tax ñu fal leen man pour man nekkuñu ci loolu quoi boo xoolee Pape Ndiaye moo fi njëkk a nekk maire politique bu mu doon def moom la Pape Ndiaye euh, moom la Kansou Bali Ndiaye ñëw ñëw di def bi Kansou Bali Ndiaye ñëwee Idrissa Diallo sax moom tane na quoi mais boo xoolee le nouveau maire aussi boo xoolee même politique boobu la ñëw adopté waat ko moom it folklore mooy dem ci jigéen ñi mooy dem waxtaan ak ay yi mooy dem fii mooy dem faa te mu waroon concentré wu man pour man en tant que jeune nga concentré wu ci liggéey li nga xam ne mooy jëmale gox bi kanam mooy fexe ba lépp loo xam ne naqar la woon dali askanu Dalifort di ko jooy nga jëm ci taxaw ba saafara ko waaw xam nga commune ay domaine de compétence am dafa dafa néew quoi xaalisam dafa néew mais man pour man commune partenariat moo war a mooy tax commune mën a avancer mooy tax projet bi maire am mu mun ci mu mun ko mu mun ko réaliser léegi nag partenariat yooyu noonu yow <laughs> da nga koy dem wuti du da da ngay tëdd ci commune bi rek bugg topp politique bi pour pour pour bëgg a faluwaat rek nga yaakaar ni loolu mooy liggéey liggéey wi da ngay wut ay partenariat partenariat kese kese kese kese moo la mun a mun a mun a ba li ngay ut si sa si sa liggéey sa taxawaay nga mun ko motal population bi mun a kontaan si yow population bi nag benn problème la am muy problème mu ndox sak nawet beneen problème bi mooy nuni ñuy def ba ndaw ñi tamit ku ci nekk am ci looy looy yëngatu loolu nag emploi commune mun na ko créer munul jox ñëpp liggéey wante mun na def kem kàntanam ba nga xam ne ndaw yi nekk ci commune bi dinañ ci gis seen bopp mais boo xoolee pratique yi ñu doon def ñoom mooy par exemple Kanzu Bali Ndiaye bu ñëwee fekk fii jeunes yi nga xam ni moom la Pam Ndiaye jëloon mu raxas ñëpp teg ay jeunes am Kanzu Bali bu mu demee Idrissa Diallo bu mu ñëwee raxas ñëpp teg ay jeunes am le nouveau maire ñëwee fekk <laughs> ñi fa kii tegoon mu raxas ñëpp teg ay jeunes am xam nga pour man loolu amul sens quoi loolu jëmelul jëmelul dëkk kanam parce que yow nekkatoo buñ la boo demee ba ñu fal la maire man pour man nekkatuloo maireu parti maire commune bi yëpp képp koy juddoo ci dalifor tey moom mooy sa maire moom mooy jiite gox bi moom mooy ci moom la ñuy référé wuwee lépp lu naqari nit lépp lu lu lu luy soxla nit moom daf ci war taxaw xar ci tànku tugayam mu nekk nag ci partem la bokk wala mu mu baña bokk ci partem solution yi dal lu mu ci gis moy mu jema a ay numuy def ba am ay partenariat par exemple xam nga tay bo gisé jeune yi nek dalifor ñu tukki ñep am nañ association te pourtant bo xolé pratiquement Sénégal modou moodu yi li ñu dugal ci réew mi kenn xamul nu mu tollu ak seen expérience xamul nu mu tollu mais immigré de pour nous faire il faut que nous am ben qui choses parce que xam nga nous ñu d'ailleurs association mais association après lan lay lan lay mujjé après affaire bi mujjé tas quoi bu maire bu pragmatique mu am ben association bo xamné na immigré yu nek Dalifort yépp ñu ci association bobu nonu yow war nga ci mëna tek sa loxo tek sa loxo ce n'est pas ngay jël di len financer wala nga non parce que ñom ñolo wara defal ñom ño wara jël sen loxo di ko ci commune bi mais bo len rapprocher wul <laughs> koku association bobu non tamit ñom dañuy doxal sen bop rek man pour man lool la quoi man pour man mom dafa wara a dox ben pa jëm ci nit ñi ak ñom pour ñu mëna jël jëmele jëmele gox bi kanam bo xolé Idrissa Diallo modestie bobu la amone ci dëkk bi quoi même bu bokul ak yow parti amoon na modestie gis la fee ñëw wax waxtaan ak yow laaj la sax xalaat ci dëkk bi man mosuma far ak moom mais fu ma mosoon a gis day ñëw taxaw ne ma Sidi ça va ma ne ko ça ñu waxtaan ci lu luy jëm ci dëkk bi te bokkuñu faruma moom ànduma ak moom mosuma ko voteel mais léegi da ngay gis ay affaires yoo xam ne yow daf la daf lay jaaxal sax quoi man pour man nit meeru gox dafa war a mel ne comme bàjjanu gox quoi bàjjanu gox nag mooy koo xam ne dafa yeewu di dugg ci biir gox bi di xool lan moo leen métti ak lu leen naqari pour mu fajal leen ko waroo di daw nit ñi waroo di làqatu nit ñi waroo di romb nit ñi di leen di leen di leen di leen moytu wala nga leen nga di leen sewal quoi parce que yooyaay meeru dëkk bi yëpp dëkk bi yëpp munuñu munuñu def dara ci dëkk bi tant que sans sa avis quoi loolu loolu mooy wax ji quoi mais koy ki li nga ma comme question bi nga ma posé sànq immigré Dalifort yi am nañ seen association loolu lañ mën te association boobu moom mu ngi mu ngi dox quoi mu ngi fonctionné léegi nag maire bi nag moo ko mën a moo ko mën a utiliser jéem a xool nu muy def ba ba ba ba ñooñu politique bu ñu bëgg def ko fii si Dalifort moom mu yombalal leen ko gars yi doxal ko loolu waaw man nag benn doomu gox bi laa rek doomu Dalifort fii laa juddoo fii laa yoro fii laa màggee fii laa jàngee école Dalifort bii laa jàngee xam nga sama samay études yeneen yi feneen yeneen dëkk laa ko mottalee donc bi ma nekkee fii nag yëngatu naa ci ci affaire yu bari lu mel nii association sportive AIC Dalifort nekkoon naa ci di ci yëngatu lu mel ni projet école Dalifort tamit nekkoon naa ci di ci yëngatu pendant des années lu mel ni aussi IMSEC bi tamit bi ñuy bi muy door a door nekkoon ci di ci yëngatu donc bi ma demee ba à un moment à un certain moment la voyager xam nga jéem outil uti leneen quoi voilà loolu mooy loolu mooy sama parcours loolu mooy sama background waaye voyage bi nag xam nga comme tout jeune bu dëkk Dalifort rek ngay gis comme jeune en général Sénégal en général sax laay wax bépp jeune bu nekk Sénégal moom xam nga sa rêve première mooy nga jéem a xool nooy tukkee pour jéem a changer sa sa sa sa dundin changer sa dundinu njaboot quoi boo xoolee lu bëri loolu moo leen tukkiloo tukki bi nag bon benn benn voie moo fi am quoi voie bi benn bi mooy nga nga dem ñaan visa ñu may la. benen bi bo ñaanee visa mayuñu la nga dem dugg par force ñaari ñaari ñaari solution yoy rek mo mo mo ci am quoi visa bi nak boko amé mom mo gëna gën a simple ah, parce que amul risque da ngay dem jël sa avion dem bële nak ya beaucoup de risque xam nga da ngay da ngay dajeeg lu nekk ci ci ci yoon bi bo xolé man sama voyage presque 4 ans le durée té ñibisu bi rek 4 4 heures de temps la quoi boo bu ma demee si télévision yi bu ma gars yi waxee bu ma leen waxee loolu moo ñoom dañuy xoolaat affaire bi ñu ne affaire bu garaaw la quoi parce que voyage boo xam ne quatre ans la durée pour nga dugg Europe te yow bi ngay ñibbi si quatre quatre quatre heures de temps rek la durée xam nga loolu c'est c'est énorme quoi waaw mais nag jeune bu fi nekk nag nekk si sa réew bëgg changer sa dundin te amoo les possibilités yi nga xam ne moom la jeune yëpp di aspirer état bi tegalu la benn benn benn benn benn affaire boo xam ne yow di nga ci mën a taxaw pour pour pour changer sa <clears throat> da ngay jéem a joxe sa joxe sa lépp rek sacrifier sa adduna pour pour mun a changer sa life quoi loolu mooy loolu mooy loolu mooy yoonu yoonu tukki bi si loolu laa jaar xam nga jaar ay Mauritanie jaar ay Maroc ay Algérie jaar libi après xam nga dugg Italie xam nga bi ma duggee Italie aussi jéem naa intégré xam nga bind naa livre. publier naa ko xam nga maa ngi jéem a ut aussi ay pexe pour jëm ko publier en version française pour pour pour pour sama mbokk yi nekk fii nii si Séné si Sénégal. waaw livre bi xam nga parcours sama parcours laa ci retracé waat rek quoi parce que man boo xoolee. sama laaf yëpp duma ko bind quoi moo tax ñu bëri da leen di jaaxal mais ñi nga xam ni jege nañ ma ay ñu mel ne ay Hamidou kamara sama copain yooyu ñoom alsan Alsane Mbodj gars yooyu noonu ma doon àndal xam nañ ni man sama life yëpp dama doon bind quoi. boo xoolee bind bi lu ma ci gënoon a kii mooy rab parce que rab lañ doon njëkk def quoi bi nekkee booy donc rab ku wax rab rek da ngay wax bind quoi comprendre nga. bon ci loolu la par loolu la loolu la kii ñu bind en wolof bu mu demee ba ci biir comme que jàng naa muy bind français. bind boobu noonu nag ma doon bind ay poé ay poème laa ko doon def bu ma demee ba Europe nga xam ni presque yow boo egsee nii amoo këyit amoo dara presque la majeure partie du temps da ngay toog rek doo def dara quoi ci laa concentré wu bind bind livre bind livre bi comme que mënoon naa bind ma bind sama livre après out ay ut maison bu ma ko publier gaa yi publier ma ko xam nga après ñu avancer quoi parce que étape life bi lool la quoi da ngay tek da ngay tek étape bo ragalé rek man pour man do dem quoi te euro bo fa nekkee nga bëgg ragal mom man pour man xam nga di nga di nga modou modou de mais peut-être li nga bëgg réaliser sa life yëpp dogu mëna réaliser quoi loolu moy sabab bind bi quoi. non weccet hamga xam nga mënuñu si mënuñu si wax mënuñu ko wax quoi mais daal xam nga ñu ngi sante yala waaw changé na changé na parce que man même même ku ma xamanteel boo ma boo ma laajee duma la wax ne <laughs> duma la wax ne foofu neexul quoi comprendre nga parce que yow Sidy Lo bu nga nekkoon démb il y a ans si ginnaaw ak Sidy Lo bi ngay nekk nii du bokk quoi responsabilité yi ñoo gën a ngante xam nga waaw aspiration yi mooy gën a ngante euh, si walu xam-xam tamit sa sa xam-xam day gëna match parce que da ngay rencontrer ay yeneen nit yo xamni ay yeneen niveau lañ nek xam nga sa gis-gis day gëna yaatu ni ngay gisee réew mi sax day day changer complètement euro mom ba fa nekké bo ñëwé ci Sénégal par force da ngay nek contre ak ak ak ak ak li fi nek quoi do mëna and ak ñom quoi do leen mëna digérer sax quoi bo xolé gaay di mer di saga di yuux yépp nek Europe bo xolé lol moy sen lol moy sen sen problème parce que da ngay ñew ci réew bo xamni ressources yi yëpp ressources yi yëpp yi nga xamni mo tabax Europe fi lay joggé nga dëkk fi yow juddoo fi te mënoo fi am dara nga jóge foofu dem ci fa nga xam ne ñoom ñooy ñëw fii di tibb yàlla dimbali fa nga tedd fa ñëw dimbali sa njaboot xam nga loolu boo xoolee ak différence bi da ngay jàpp ne yow kon ñii nekk fii ci réew mi ñoom ñoo liggéeyul quoi ñi ñu fal ñu jiite ñu ñoom ñoo deful seen seen seen seen wareef quoi te loolu loolu yàgg na yàgg nañ ko xeex ay nit ñàkk nañ si seen bakkan xam nga mais ba léegi même chose la quoi li nga gisoon daaw daawaati jéeg ay at ay at ci ginnaaw moom ngay gisaat jusqu'à présent koi man pour man njiit yi changé ko amul amul sens quoi parce que changer njit bo fi nekké di changer njit di changer njit parce que loolu moñu lor bo xolé Abdou Diouf dañ ko dégager indi abla wad mu ñew def ay affaire am dem yonam après ñu jëlee fi abla wad indi Macky Sall gis nga ko momit numu jappé réew mi comprendre nga man pour man sénégalais mun na mun na folle mais fal la mënul quoi fal nak da ngay tànn quoi parce que gaay waru ñu top rek ay ci populisme top ay mbumbay top ay ay ay ay ay ak ay ki man pour man lu ñu war a topp mooy programme koo xam ne daf leen wax dëgg jii leen dëgg dem ak yéen ci loolu ngeen ànd ak moom fal ko kooku boo ko falee au moins moom dina dina teg ay ay ay ay ay jëm jëm ci kanam mais boo falee koo xam ne politicien la à cent pour cent bu ñëwee itam day politique rek bu ñëwee ay politicien lay fal ay ministre fal ay politicien ay député fal ay politicien fu nekk bu ko defee dëkk bi nekkaat dëkk politique du ñu du ñu liggéey sérieusement dëgg Dalifort mom lu mu len di denk moy election yi buñu votel APR lolou moy suma premier wax parce que yow nit ki mënu la nax ben yon parce que yow kan ngay votel ben ben femme ngay votel bu nek ci bir dëkk bi amalul amalul njeriñ dëkk bi té mom kessé moo tax di ray seen bop di sol ay tisset di di di daw ko dugo ko genn fa am bobu nono nak gaay nara votel bu bu falo mom njeriñam njeriñ bi ci bopam lay lay yam du ñëwaat ci population bi kooku nag mënu leen nax nekk député wër wërloo boo ko gisee tey balaa nga xaa gisati yàllaa xam mu ñëwaat taxawaat ne leen na ngeen ko falaat député ngeen di toppaat di ko fal bu ko kenn fal te ku képp ku votel Macky Sall ci élection yi ñu ñëw yii di ñëw jàppal ne yow nangu nga troisième mandat bi te bakkan bu ci rot yow jàppal ne yow te comptable ci crime yooyu yooyu yëpp di am parce que gars yi bàyyiwuñu quoi maa ngi ñaan bépp jeunesse bu conscient bépp jigéen bépp ndaw bu dëkk ci bi bu conscient bul votel APR ku la neex mais APR ak seen coalition boobu noonu mo xawma sax nu tudd bu ko kenn coalition hein? benn Bokk Yaakaar ku bëgg Sénégal développement bëgg changement bul ko votel boo ko votelee mooy yow ba léegi yow fi nga bëggoon nekk ngay nekk gis naa nag ñi koy to ñi leen di topp ñi leen di topp mooy ñi ñi sonn ñi gën a sonn ci àdduna bi ñooy ñoo leen di topp ci mbumbaay bi bàyyi leen mbumbaay bi ngeen di topp bu ngeen duggee ci saali yi votel leen beneen coalition mais Benno Bokk Yaakaar bu ko kenn votel ci élection yi ñu jëm maa ngi koy ñaan bépp population Dalifort maa ngi koy ñaan bépp jeune bu conscient bu intelligent buy xalaat bu bëgg réewam jëm kanam loolu mang koy ñaan bép bép dalifor képp ku dëkk dalifor ak képp ku dëkk ci biir ci ci à ci ci réew mi. kaddu gu musique yi man ma leen di sante Daf Vision di di di sante aussi population dalifor xam nga parce que may am page Facebook gis naa gars nuñ may nuñ may suivre xam nga dalifor moo ñu boole bi tamit groupe la boo xam ni presque am na 1300 personnes ñoo ci nekk gis naa ni ko gars di suivre mais lu ma bëggoon rek mooy aussi yéen tamit ñu jàppale leen waa Daf Vision. parce que mun mënoon nekk télévision communal boo xam ni yow bi ngay bi ngay ñafe presque léegi kenn xamul ñaata at la ah, nga nekk ci commune commune bi mënu la jàppale mënu la subventionné moyens yi ngeen yoroon il y a dix ans moom ngeen moom ngeen di nekk di yor ba léegi man pour man loolu man pour man jaaduwul tegul ci yoon te maire bu conscient da ngay jàppale sa jeunesse sa jeunesse gox jeunesse bi mooy avenir te yéen avenir ngeen na leen maire bi jàppale di leen subventionné comme ni ñuy subventionné yeneen ay ay AIC ay affaires yooyu yëpp ëpp ñu leen jëriñ ci dëkk bi parce que information buy xew ci dëkk bi yéen yéen a koy joxe kon nañ leen jàppale jàppale ñëpp asalaamaaleykum jaajëf.